maa yaksifu laka uyuba nafsik wal mu mubin nag ma maa yaksifu ka uyuba xayrika <laughs> maanaam kasfu ñaar la kasfu bu am njariñ ak bu bon ak bu baax kasfu bu baax mooy bi lay wan say sikk kasfu dëgg-dëgg mooy nga xam sa sikk xam ne man kat damaa rëy nga jéem a lijjanti rëy googu noo ci noo ci génne xam ne man kat damaa iñaane diw mee wala damaa soxor wala damaa mën a bañ dama am ku ma bañ yooyu yëpp nga seet noo ko lijjante maanaam loolu nag am na ñoo xam ne mën nañ ko bañ a gis fi ne am na xam ne ay jikko yu mel noonu mën naa nekk seen biir waaye duñ ko gis a demee ba mën a gis nag sa sikk nga xam ne loo am ci sikk lu sew sew rek nga gis ko te jéem a noo ko lijjante loolu am nga kasu loolu la sëñ bu wax nee na nag kasful mubin nag moo lay wan sikki jàmbur yi sikki jàmbur loolu jinne yi sax mën nañ la ko nettali jinne fi ne maanaam fi ne tey nit mën naa ñëw ci yow jinne ji muy àndal seytaane bi muy àndal mooy nettali seytaane bi nga xam ne moo nekk ak sëriñu tariyaa bi ne ko diw mi kat nangam lay def ak nangam lay kooku nettali ko tariixa kat mun ka yow nangam nga tudd bërëb sàngam nga jóge ah fekk loolu xam nga du dara loolu xam nga moom mooy kasful mu biid moom la Sëñ Tuubaa wax yàlla yàlla musal ci kasfu moom <laughs> eh, yaakaar naa def ñaan auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim